ورضي الله عن سادتنا الكبرى وعلى رأسهم شيخنا ووصيلتنا أحمد بن محمد قديم رسول الله عليهم رضوان الله تعالى أجمعين بقي يونغي دي نيو تي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي بيغ لول تي اندك يين تي waxtaan wi ñu fas yéene waxtaan ak yéen muy waxtaan wu jëm ci dundal xam-xam ak waa xam-xam di sant sunu borom bi mu nu xiiwalee nu bokk ci ñi koy taxawe ak ndimbalul ñi nga xam ni jóg nañu ngir sàkku ko te jàppandal ko ka ca bopp ba di sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Moustapha ابن معمر مبكي ابن الشيخ محمد الفاضل المقرئ الكبير والعالم الجليل رحمة الله عليه رحمة واسعة نسانت سنو بروم في لجي بوبله نحكي نخمي نيونو كسانت واجوري بسرين مامور دفع دوران سنو لب lu jafe ci nun la sax boo nu waxtaan waxtaanloo ci mbir mu ko jige dana doon lu nu xaw a diis ndax tolluwaay bi mu amoon ci nun ci wàllu bëggeel ak wàllu safo te lépp yàlla waraloon ko ndax dafa doon nit ku bëgg yàlla bëgg diine yàlla ji bëgg sëriñ Tuuba bëgg njaboot gu baax gi yépp ci loolu la doon xëy ci lool la doon gont di jariñ jaam yi ci di leen jàngal di leen tette di dimbali miskin yi loolu moo doonoon liggéeyub sëriñ Mamor Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadil yal na ko yàlla boole ca mbooloo mu ñuy tuddee annabiyuuna wa siddiquuna wa suada ndax yayoo na ko ndax wet ga ñu jaaroon lef ma ñu jaaroon ca lef mooma la jeexalu dundam muy leppug jàng ak jàngale ak jubbanti ñooñu nag tey bu ñu amee cofeel ci seen maam ju baax di ñuy woowee Cheikh Mouhamadul Fadil te Mamour liggéey ci liggéey bu rafet ci feeñal ay jëfam liggéey boo xam ni ku ko seet xam ni liggéeyu xam-xam la liggéeyu boroom xam-xam la waaye liggéeyu ku farlu la ndax li nga xam ne moo daan daje ci Cheikh Mouhamadul Fadil ay boroomi xam-xam ci biir réew mi ak bitim réew di feeñal seen bëgg di feeñal ab liggéeyam di tagg ay jikkoom kenn xamul nu ñu toll waaye ci farloom góor góorgóorloom mu dajale loolu yépp wala boog la ci ëpp ci benn téere boo xam ni moom la ñuy tuddee euh, ci tur yu mag yi شواهد بعض الافاضل في مناقب الشيخ محمد الفاضل شواهد بينك نيكو سيري ني باري لاجو في بير ريومي اك في بيتم ريو لو اوب جوروم فوكي بوروم خام خام كين كو تي نيك ديف nga ci mom waxuma ak qasida de ay qasida am ci ño xamni sa bu mat sëkk di wax ay ngëneelam ak i mbaaxam ñaari nit ñu am xam-xam sax bu ñu dajee ci yëkkati dara loolu rëy na waxuma nag lu àgg ci ay asaraatin asaraat ay boroomi xam-xam liggéey ci liggéey bu rafet bii muy sëriñ Maam Moor ak ñi ko ci jàppale ñëpp nga xam ne ku ci nekk liggéey nga ci liggéey bu rafet ku demee ni sunu sëriñ di sunu xarit sëriñ Cheikhouna moom Cheikh Mouhamadul Murtada ibnu Fadil ayadahu llahu wa nasarahu wa azira ak mboolem ñi ci yëngutu ngir lan ngir leeral liggéey bu réy boobu nga xam ni sëriñ maam moo rahmatullahi alayhi def na ko ay ba magam ñoom ñëpp rafet lu wax ji bind ko yit xalima tàmbalee ko ci cheikh Mouhamadul Muntaqa الخليفة العام لطائفة المريدية afisoo allahu waraa bind ci xalimaam tagg liggéey bu réy boobu sëriñ maam moor def ak magam ju baax ja sëriñ abul baraka moom cheikh mohamadul fadil ñu toog ab jitaayam tey moom it bind ci xalimaam ak bokkam ya sëriñ aliyun mbakke cheikh abdou samad moom cheikh abdul qadir mbakke ak mboolem ay boroomi xam-xam ci yoon wi ku ci mas gis liggéey boobu nga xam ne nii sëriñ Mamour liggéey na ko rek wallahi sa fit jóg na taxawaat xam ne liggéey bu réy ngi boo xam ne liggéey mësu koo mel noonu Cheikh Mouhamadul Fadil ay tàggam euh, dafa mel ni lu ñu woyantoo ba jàll la boroom xam-xam ba waxoon ci moom ni lam yuxsi مرء الشيق أبلغ ظاهر بوجيسه كلا ولا إفهامه نينا كده قوي تلدني بجيما نجن لغا خمني موم لا أم في والله بو غتاليك بو غدالي نيوتي يم دوغمان فلو أن أشجار البسيطة كلها خلام ووجه الأرض أجمعه رقو mu ni boo dajale woon li nekk ci garab ci àddina bi def ko ay xalima suuf si lu ni toll nga def ko ay këyit du tax nga bind lu tolloo manaaxib yooyu nga xam ni ku baax kooku am na ko wa saara midaadan wa saara midaadan kullu baxrin xatam tamin wa aqsama an yuxsi madaaixahu alxalqu bu ñu bëggee takk li am ci ay ngëneel ki mbaax du tax ñu man ko mboolem woykat yooyu nag di ay boroomi xam-xam ci biir réew mi ak ci bitim réew kenn ku nekk wax nga ci moom ay jagle ak ci maqaama yoo xam ne duñu waxkatu caaxaan maanaam duñuy caaxaan kat ndax nit lañu yoo xam ni boo xaman ñooy ñan danga xam ni kenn ku ci nekk ci këlfeen yu mag ya nga bokk te nag wal xaqu ma saidat bihi l koo xam ni ku am ngëneel seedeel na la ngëneel loola mooy ngëneel lu mag la bu nu duggoon Mauritanie tey lu ëpp ay juróom fukk wala lu ko ëpp danañu woy Cheikh Mahamadul Fadil ci wax ay ngëneelam ak wax ay mbaax mbaaxam boo ñëwee ci Sénégal it fekk fi ñoo xam ne nii wane nañu seede yooyu di ay woykat di ay bindkat te nag amuñu jot kon ku ñu bind ci yow sa daraja ak sa maqaama moo ko waral waaye duñu ñu ñàkk jot duñu amuñu jot tey doonuñu ñuy taxawal dañoo nekkan ci liggéey boo xam ni sëriñ bi nekk ci liggéey booba moo leen yéem ba tax ñu yëkkat seeni xalima di wax ci ñoom ku demee ni kii bu ñuy wax ci Sénégal sëriñ Cheikh Sey sëriñ Cheikh Sey moo doon wax hal sairun rama raama al fadli isfatwa fatwa xasiidaam booba di wiy sëriñ am di moom sëriñ Moussa Ka moom itam te ñooña la bokk ma ku ñu wax ma ante job de kon taif def ci xasiida yu rafet serigne Mor Jooja fall ngeen xam ko doomi sëriñ moon ngoone Fall doonoon saayir boo xam ne moom it dund na nag moom xam nanu nu mu meloon ci fulla ak nu meloon ci diine ku mu yëkkati xalimaam ngir yow te kàngam ya nga bokk te bokk na ca ña nekkoon di tagg Cheikh Mouhamadul Fadil woykat bu mag ba ñuy sëriñ Serigne Mahmoud sëriñ Serigne Mahmoud Sill doomi Cheikhana Serigne Sill moom itam doonoon boroom xam-xam bu nekkoon ca tureen du bokkoon ci boroom xam-xam yi yoon wi doonoon jaamukatu yàlla doonoon suuf yankee bu mag ba moom itam bind na ci cheikh Mouhamadul Fadli ku demee ni cheikh Mouhamad Lamine Jaxate cheikh Sidi Muxtaar Ka di sunu xarit di sunu lépp di shaair bi maanal kalima bokk na ci sénégalais yi def ci moom ay xasida سرين بابكر بوسو ينعكو ويترين باي بوسو فرام نيب خام كو موميت تي جانغ اك جانغالي لولو دونن ميتيم دونن لومو دون باكو دونن لومو دون بيغي موميتام بيندنا كي خاليمام تي تاغ شيخ محمد الفاضل ا كون شيخ محمد الفاضل موم شيخ عبد القادر سونو يليمان موميتام ديفنا تي قصيده داماي ليم رك نيغا خامني كو تي نيك def nga xasida ci cheikh mohammed fadil serigne mustapha gay njourbel cheikh Ahmadou Bousso momi def ci mom xasida saayir bu mag boobu suufiyanke bu mag bobu de serigne cheikh Asatu dif sétam momi tam def ci mom xasida ay xasida serigne Maam Mbacke Fadil mi nga xamni mo moo li lii moom ab gopam fi goppam mag ñi nekkon ci bind ci cheikh mohammed Fadil Eh, ak yeneen woykat yu bari yoo xam ni dañoo dafa yem ci ay xasidaam te gëstu na te jotut gi seeni tur loola boo ko seetee àgg na ci moom itam ay fukki fukk yoo xam ne ku ci nekk wax nga ci seex Mouhamadul Fadil buñ doon topp kon ashuara al na ñoom itam noonu la ñu meloon ci tagg sëriñ bi ngir lan ak mbaaxam ngir lan ak wilaayaam ngir lan ay maqamam yu kawe ku ci nek sédel nga ko cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xamné modi khalifa Serigne Touba mu wax ni bu nu ñëwé ci qasida yi nga xamné borom xam-xam yi def nañ ko ci mom te bi may lim sénégalais yi ba mukk ku ñu woowee Cheikh Ahmed ibnu Ousmane Abdul Qadir al Fuuti xam ngeen ko mooy bàyyi shaayir bu mag bañ daan wooyee Serigne Moustapha Anne te ku ko xamoon xam Seex Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma xam nga ko ku ko xamoon te xam boroom xam-xam yu Sénégal xamoon nga ko ci dugal gu mu dugaloon loxoom moom itam ci biir lefum jàngkat yi kooku moom itam def na ci Serigne Mouhamadul Fadil ay wayurul jeex Serigne Gas Cheikh Alaaji Cheikh Gasama ak ñu demee ni ñoom waaye damay génn benn xasida rek boo xam ni Seyd Ousmane wala boog Amid ibn Ousmane ibn Abdul Qadir al-Fuuti at-Talari moo ko way mu wax sëriñ bi ni ko minni ila al-faadil al-mifdal sil jaahi bahri an-nada khayri tayyatin wala shahi tahiyatun min safiy al-wuddi haafidihi amsa walam yart تفث ولم يرتصف كأسا من الشاي موحني مي نيوتي جامبار جو ماك ديغا خامني موم لا نيو الشيخ محمد الفاضل بروم دارا جو ماك كي جيجو تاب جي كيغا خامي نيكول كوتوي نيكول كوي جاموج كي فاتي اي غرام ولا فاتي اي موكم كي لا واخي لدى الفاضل المشهور تقضى المآرب وتؤتى لأرباب المرام مطالب بو بغي فاج اي اديو ولا nga bëgg am li nga bëgg dawal nga cheikh mohammed al Fadil ndax lolu rek la muni wa tuxfaru salatun wa tuqda awaiju wa tujlabu xayraatun wa tunfa an-nawaib bo bëggee bakkaar yu farit debal jige ko mooy koo xam ne lépp yu bakkaar la ndax barabam deetu fa dégg lu ñaaw deetu fa xool lu ñaaw deetu fa yég lu ñaaw kon boobu barab ku fa dund yaa ngi dund ci biir jamono boo xam ne nii jaliisam wallahi la yutxal jaliitu ci toogaaleeg moom kooku mooy ki nga xam ne toogaaleeg moom fa la ñuy xëcce yiw yépp waaye musiba yépp it fa lañ koy dàqee wa tumhal xataaya wa sunubu wa tujtaba chimaarun min al jadwa wa tuuta raghaibu boo bëggee far ay bakkaar boo bëggee daq ay ñaawteef demal nga toog ak jëmu jooja boo bëggee wett meññantum njariñ boo bëggee jot ci ay xiiwal yu dul jeex demal nga toogaaleeg moom wayul fa ladayhi kullu aafin wa murtajin wa turjal mataaya naxwahu wa rakaibu nee na boo bëggee daje ki nga xam ni boo toogee fi moom mbooleem kuy wut aajo dana la fa fekk ku yaakaar lu tëju mu ñu tijji ko dana la fa fekk dawal waruwaaya ba egg ci barabam boobu le kooku nag mooy ki nga xam ni taral fadilal mas'ura yartaahu li nada isa fuqida taxta indal kiramil mawaayibu mooy ki nga xam ne jamono bu nit ñi ñàkkee jamono bu nit ñi bekkooree ca yi gën teeru laajkat ya ca yi gën a bégee ci seen kanam àgg na ci tàgg ko ba ni bu lay jox ay mayam moo lay gën a bég ci jox gi mu lay jox moom mi joxe mooy gën a bég koy jox kooku mooy tab bu mag ba mu ni afisal wara nat bun yu xaasu bi fadilin sulalati man tunma ilayhi lmanaqibu ndax bi ma wëree jamono dinaa gis koo xam ni kuy faj ay ajo ku mel ni Cheikh Mahamadul Fadil koo xam ni boo ñàkkee may ya demal ci mom rek lépp dina sotti ko sa kaw shabihuka mafquudun wa haluka shahidun wa hubuka masduuxun wa diduka katibu yow Cheikh Mouhamadul Fadil wallahi ku rok yow wër ko jamono baye mutuma ko gis te sa melo mo la seede sa melo mo seede sa mbax mo seede sa xam-xam mo seede sa mandute sa topé lumu wax deug la ndax gisul ci yow lenn lu du lu ñu wax waaye sam noon nag lum wax du dëgg ndax gisul ci yow lenn lu ñuy xebat walla wala taxsa min rabbil samawati faqatan fa risquka madmunun wa rabbuka waayibun yow daal amuloo looy ragal ci joxe say may ndax boroom aras ci boppam mooy kila jox kon ragaloo ci moom mu ñàkkal la abadan sa wërsëg yàlla da koo garanté boo doon sotti li tawit muy sottiku mel ni géeju as géej gu bàbbi ko ci asamaan kon nag kooku le mooy Seydi Hamidou Ousmane wax jure jooju nga xam ni wax na ko Cheikh Mouhamadul Fadil kon shuaraaw yi wax nañu ba tàyyi ci moom surtout sa rawatina moom moom yi nga xam ni moom la ñu jagleel fas yéenee waxtaanee ay xasiidaam wala len ci ay xasiidaam yu mu def ci sëriñ bi waxna ben bis ni ko nasaltu wal khalifatu maqsadi fa akrim bihi min sayyidin najdi sayyidi wallahi wàcc naa ci dëkk bu tedd bu ñu wax tuba te ken taxul ma wàcc fi ludul khalifa bu mag bi ñu woyé Cheikh Mamadou Fadil mi nga xamni moy sang bu tedd ba te moy domi sang bu tedd ba nasaltu bi tuba wal amaanu yaquudini ila multaqa ahli al awaiji wal xasbi ñëw naa tuuba te fekk nag kóolu téef mooy ki ma womet ba ëgsil ma ci ki aajo yëpp daje ci moom ki nga xam ni bu ko ko loo jàq ci sa kër ci ay aajo ca moom nga jëm fa akrim bihi min sayyidil mutaxalliqin bi ahsani axlaqin wa usni taaddubi ku teddangoog koo xam ni dafa jikkoo jikko yi gën a rafet te yor it jaamu yàlla ga gën a rafet ci jaamu yàlla yi bu jaamoo yàlla ci xeeti jaamu yàlla nga ni eskay waaye bu jëfandikoo itam jikkoom doomu aadama amul jikko ju mel noonu manasiluhu li shaa'irina saadatun wa maatadihu fi qutrina xayru maatadi këram day du këram ñiy siyaat ñépp ko bokk ku ñëw wàcc ci moom la nee na waaye cosaanam itam ci sunu gox bii bokkoon ak cosaan yi gën ci cosaan yi fa aabauhu ma bayna xutbin mubarakin wa axwaaluhu ma bayna haadin wa mursidi bu ma seetee ay waajuram du ma fekk lul koo làmb mu di ab xutb bu ma xoolee ay ndiyaayam du ma fekk lu dul koo làmb muy kuy jub ak a jubalaate loo rek laa fay gis bihi niitatil ahkaamu xidman wirasatan wala xarwa anna sibla bil lay si yaqtadi nee na jëmmangoog joo xam ni euh, kii moom lañu ñu teg axkaam yeeg tey dafa mel ni dañ ko ko doon la mu téye waaye nag loolu yéemewul ndax ku ne xam na ni kutib gaynde mënte def lu dul miro gaynde ga rek isa sukkira saadaatu wa huwa imaamuhum wa aqdamuhum izzan wa ahsabu mawridi buñ dee tudd baaxu gaa yu baax yi ba ëgsi ci wa arfau tudadan wa atyabuhum aslan wa ahsanu masadi mooy ke leen gudd am lef mooy ke leen yaatu tedd nga mooy ke leen gën cosaan mooy ke leen gën a rafet ab tooguwaay wa ajwaduhum kaffan wa andaahum yada واكرم من عمرو واكرم من سيدي موي كلين غنا تابي تينغ تينغام لا دارو لو جاتا لا نار با واخان واجو ديم ودال نكو نار با ديني وان تي عمدو قديم لي تابي تي لوخام لي مي باري باري افاكا وورو كو ناخ دوكو دنج فما وجبت عليه زكاة مال وكيف وقد يجود بما استفاض إذا راعت لراعته الهدايا خذت منها الى اخرى تعادا موي كو خامي اتاكا واروكو لوتاخ بو على الخيفه تي لوخوم بلا غون مو ديم تي يمين لوخو تي اتاكا نا خنا ات داي ام تي موم علال دو ام تي لوخوم بيس بو مات واخوما لا ام ات كون مو غنا تابي نيب كون نك فسائله يحوي مغانم كثرة وسائره يحفى وعاتله ردي موم ديك نيو ديكو لاج la muy laaj lépp dana ci jot ci lu gën ëpp sax lam doon laaj waaye ki ko suyaarit daañu lewal xiiwal yi déggool koy rëcc rëccam waaye ka koy iñaane nag ab mooy alko wa talfaawu tuula dahri lillahi muqbila waysa ilal aliyaai saayal xafay doot yi moom jëmm jooja may wax jëmm la joo xam ni danga koy fekk jamono bu ne dara du yitteem lu dul jublu ca yiw wa waaye foo ko fekkit moo raw naaru góor ci jëm ci tedd ngay watul fiihi an kullil manakiri mudbira wa an jumlatil faasaayi wa laxwi wa dadi boo dee seet sax Muhammadul Fadil da fekk mooy koo xam ni mboolem lu ñuy bañ mboolem lu ñu sib won na ko ginnaaw te mosu koo xool mbollem ñaaw teef yeeg po yi ak neen yi cheikh mahamadul fadil musta djublu famu nek wa asin khariban fi sana'i khalifatin wa da shikra atlalin bi burqati ramadi yalla way way kat bi ma ngi lay sante bul fi nek di wayati muko ay gent wala ngay way ay jigen waccer ñépp te nga teug sa xasida yi rafetal ko ci tag khalifa bu tedd bi ñu woy cheikh mahamadul fadil wa foodu sawil ajadi ترحل نحوه من أقصى بلاد الغرب والصين والهند mboolem ñi nga xam ni dañoo yore ay aajo fëxandoo nañu fa ñu jóge jëm si ci moom moo xam saw lañ jóge moo xam siin lañu jóge moo xam ind lañu jóge wa ajdaaduhu xurun kiraamun ajillatun wa kam sayyidin fihim manutin bi sayyibi nee na ay maamam day ay sang lañu ñu tedd lañu ñu màgg lañu sang boo ci gis day cib sang la ak cosaanoo muy cosaan loo xam ni dafa tàll luy wéy lépp a bokk baax kooku moo di Cheikh Mouhamadul Fadil ci wax jure jooju nga xam ni boroom xam-xam bu mag boobu waxal na ko Cheikh Mouhamadul Fadil kon jooju jëmm mooy jëmm ji nga xam ni tey euh, doon nañu waxtaane ay waxam lu tax bisam dafa jege si bis bi nga xam ne nii ci la ganee woon àddina ñu di ko wooyee kazu rajabin mooy bis bi nga xam ne moo nekk laylatul israa wal mi'raaj ci bis boobu la ñu génnee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéege ko ci kaw asamaan yi mu wuy ji boroomam ci bis boobu lañ ko joxe woon jaamu yàlla gu mag gii gi ñuy wooyee julli juróom kon Cheikh Mouhamadul Fadil mënta bañ a nekk ab julli kat ndaxte moog julli dañoo maase moom moo di ab seexam moo di ab dëkkandoom kon nag dëkkandoom boobu day teral na ko. tabaxal na koom néeg bu rëy bu mës am ci réew mi waaye itam di ko fa jiiteel mosu faa yebal kenn ni ko demal jiiteel ma ca néeg ba waaye moom ci boppam naka jekk mooy jiite néeg bu mag boobu lee kon kooku le nga xam ne ay boroomi xam-xam seedeel nañ ko mbaaxam laa xarwa nu ñëw tey di waxtaane ay mbiram kon ki nu may nu mën a fekk nu mën a xam mbiram muy jëmm ju baax jooju fi nekkoon démb muy sëriñ Maam Mor Mbàkke ibnu cheikh Mouhamadul Fadil yitteem yëpp nekkoon ci xam-xam dajale woon boroom xam-xam yëpp bëgg leen waaye noonu boroom xam-xam yi daan xëyee ci këram ngir jariñu noonu la miskin yi jirim yi daan xëyee këram mu jaar ci buntu ginnaawam ba di am lu mu leen di séddale ca nga fekkaat gaa yi ca mbaar ma am lu mu leen di séddale kon da daan joxe may alal ni mu daan joxe may xam-xam kon loolu moo doon liggéeyam bëgg xam-xam moo ko yóbbu ci joo ki ci liggéey bu jafe bii liggéey bi nga xam ne nii tegtale na xam-xamam waaye tegtale na njàmbaaram tegtale na bay yittee àddinaam ndax gëstul yi ay ati at wallahi nit koo xam ni am nga yittee addina mënoo ko kon nag bi mu defee li liggéeyal na xam-xam waaye liggéeyal na daara ji liggéeyal na réew moo xam ne jamono boo xam ne ci dëkk boo xam ne seen yitte yépp léegi mooy taxawal ay daara seen yitte yëpp mooy taxawal ay université boo leen joxee xam-xam bu baree noonu bokk ci li ñuy war a jariñoo di ko yóbbuloo liggéeyal nga ko rafet kon sëriñ Mame Mor wallahi nelawal ci jàmmu yaa ngi foofu ci kaw googu yi nga nekk kawe googu nga nekk jamono boobu nga nekkee foofu yaag ña nekk ca université bu Cheikh Mamadou Mountakha وشيخ محمد المرتضى يينا يام يانغا فاي جوخي اي ليسو ليسو يو خامني دوتول داغ بكير يوم القيام كون يال نان لا يالا فايال تي سام سا نجابو جي يي خامني نيوميت ييتي وونو نيو تاساري خام خام بوبولي ييتي وونو نيو لو باخ لولو دي نداخ ييتي وو لو باخ باخا كوي وارال والله لو جافي لا بو لين ديفاني لو يومبلا فخه با ام لو باخ خام لو باخ يومبول تي غاي كين كو نيك وكل اناء بالتي فيه يندعو ñu riir wuti àddina loolaay seen yitte lu ñu mën a def ba am ko danañ ko def waaye ñu wër xam-xamit lu ñu mën a def ba am ko danañ ko def kon nag bu njabootam jógee riir wuti xam-xam ak dajale xam-xam li mu doon liggéey ñu àggaleel ko ko yal na ko yàlla yal na den yàlla fay sàmm leen te sàmm njaboot gi ñoom ñépp mbaax gi mu fi doon lal bàyyi woon àddina di maye ay kër di defar daara di tabaxi daara yi maye di defari tool di séddale di sànni xam-xamam ba bëccëgam loolee tey njabootam nee ñu ko neexoon nanu bëggoon nanu ko kon noo ngi la ciy liggéeyal kemtalaayi lu ñu man kon yal na leen fi yàlla yàggal maa ngi ndokkeel ñëpp muy Cheikh Moustapha ak rakkam ak ay rakki suñu maam yi nga xam ne doon nañ ko jàppale ci liggéey bi ku demee Serigne Cheikhouna moom Cheikh Mouhamadul Murtada moom Cheikh Mouhamadul Fadil docteur yal na la yàlla sàmm te bàyyi la fi dëgëral la ba li nga yéene ci tasaare ko mu wéy moom itam kon Cheikh Moustapha ak njaboot gi ñoo ngi leen di di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen tawfiix defal nu ko te sàmm sàmm mboolem ñi nga xam ne ñoo doon topp ci liggéey bi yal na yàlla fekkee loowaat gàmm yu bëree bari màggal yu bëree bari muy kësu rajab yu bëree bari te ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi def sa Cheikh Abul Baraka uuf njaboot gi. jàppale leen yal nañ fi yàgg kon ñoom ñëpp nga xam ne liggéey na ci liggéey bi noo ngi leen di ñaanal tey ñaan yàlla yàlla sàmb leen bàyyi leen fi nu ànd di jëriñoo liggéeyu Mame Mor ba kera ñu koy fekki di sant ñëpp yéen ñi nga xam ne ko jël si ci biir kër gi noo ngi leen di ñaanal yéen itam yàlla defal leen teraanga tey ëllëg defal leen tawfiix defal nu ko defal ko sëriñ Moustapha Mame Mor Mbacke mi leen fi yebal moom itam yàlla sàmm ko sàmm ay rakkam ak ay bokkam ndax yoon wi jaar yoon waa ngoog doomu aadama ji gën a am solo mooy tiitaroo waajuram waxuma laa waajur wu jaaroon ca mbaax ga ñi am waajur yu jàdd sax ñu ngay jéem a dekkal seen waajur yooyu naan bàyyi lii la doon def lii bàyyi ko doon def kon nag ki yàlla wërsëgal bàyyi nekkoon fa gaay yi nekkoon fa yu mag yi nekkoon ngay dundal loola loolu wërsëg la danga nga cee sant yàlla waaye ak njàmbaar ak góorgóorlu mayew ko kon noo ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Nema